monsieur Amar Kane ñu ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum soxna si delloo nañ leen nuyu bu baax a baax. ñu fàttali ne yow yaa secrétaire général bi eh, jiite syndicat enseignement professionnel et technique tey jii ngeen nekk ci seen sixième plan d'action ci grève bi nga xam ni tàmbali ngeen ko ndax mën nga ci ñëwaat. waaw jërëjëf madame eh, comme ni nga waxee ñun syndicat enseignement professionnel et technique dañoo nekk di ñaxtu ay fan a ngi nii ci ginnaaw te boobu ba li ñuy ñaxtu di leen lu dul ñu jox ñu cër bi nga xamante ne moom la moom ndax bu ñu xoolee enseignement technique et formation professionnelle tey euh, lu bëri daf ci jaxasoo ndax kañ ko jox mu war ko toppatoo moom moo ko toppatoo li war euh, li ñuy ñaxtu nag dafa xaw a bëri euh, li ci njëkk moom mooy li ñuy wax formation diplômante yi tey bu ñu xoolee formation diplômante yi day yéex lool nit ñi daañu def fukki at wala lu ko weesu avant ñu leen di dugal formation diplômante te sax mu am ci ñun li nga xamante ni amatul ci éducation ñi nga xamante ni ba léegi ñoo ngi ci système bi te mënuñu leen defal formation diplômante lu ci mel ni infirmier yi ak sage-femme d'État yi lu ci mel ni yenn professeur gestion yi ñu ci mel ni yenn professeur informatique yi mun mel ni ñooñu dañ leen bàyyi ci système bi rek mais jéemuñu leen fulaal jéemuñu leen faydaal maanaam nañ leen recruter fa ñu tolloon depuis fukki at depuis fukki at ak ñaar foofu la ñu toll ba léegi loolu muy benn ñaxtu ci ñaxtu yi ñu ñaxtu beneen ñaxtu bi bi nga xamante ni moom la ñuy ñaxtu mooy euh, le fait que ñoom ñi nga xamante ni ñoo ñu jiite tey te ñu bëri nekkoon ay jàngalekat euh, ñu permettre leen ñu mën a di avancer seen carrière tey ñoom ñoo bloqué carrière jàngalekat yi parce que ñu organiser li ñuy wax passerelle yi boo xoolee boo demee Pastef ñoom ñoo ngi def passerelle mais ñun suñu jàngalekat ñu ci gën a bëri yeneen école lañ leen di tàggati li ci mel ni INSEP te INSEP pour nga mun fa dem bu fekkee jàngalekat nga il faut que ñu wutal la li ñuy wax passerelle maanaam ñu euh, ministère bi def commande mu mun a ubbi passerelle yi mais loolu ministère bi ay at a ngi nii ay at yu bëree ngi nii nangoo ko def mu mel nii dañu naan jàngalekat yi fi ngeen toll même boo ngeen jàngaatee ba ay lijaasa yu gën a kawe toog leen fi ngeen toog. ñun fii ngeen war a yem mu mel ni soxor la euh, ak ñàkk fulla ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk enseignement technique ak formation professionnelle euh, beneen ñaxtu bi ñuy ñaxtu nag tey boo ko waxee ñu ne jàngalekat dañoo bëgg xaalis mooy euh, indemnité de correction et de surveillance yi nga xamante ni yoral nañ ko jàngalekat yi boo xoolee ñu naataangoo yu nekk éducation ñoom lekk nañ seen xaalis ba mu rees depuis le mois de décembre ñun tey le cinq mars depuis ñuy waxee nii ñoo ngi daw ci ginnaaw xaalis bi nga xamante ni moom la ñu yoreel te ma teg ci madame mhm. di leeral nii bu fekkee ni éducation national lu ci mel ni ba buñ koy def examen dañ leen di jox ay avance ñun enseignement technique nag pour nga mënta yóbbu li ci li ci li ci gën a ñaaw mooy bu examen yi lay jot Sénégal sax seetlu ko yëpp mooy ñàkk fulaal bu ñu koy ñàkk fulaal mais ñaareel ba mooy li ci ëpp buñ lay wax ni da ngay dem examen benn fan wala ñaari fan ak ci ñu war la yóbbu nga war a jógee Dakar dem fu mel ni Kédougou wala nga war a jógee Kédougou dem fu mel ni Matam nga def ko lépp ci sa koppar bopp léegi la toog di xaar xaar ay juróom-ñeenti weer fukki weer bu fekkoon ni dañu ne dëkk bi amul xaalis ñu nga comprendre waaye au même moment ñoo ngi gis ñi nga xamante ñoo ñu jiite ñoom saa ñu bëggee déplacé wu ñoo ngi déplacé te seen i mission dañu leen tey fay balaa ñu koy jógee ñu ne kon nag ñun ñii lañ ñun ñi nga xamante ni ñooy jàngalekat yi nañu taxaw temm ak li nga xamante ni moom la ñu war a xeex am na yeneen point nag ñu nekk ci mais xam naa ne euh, du fi du ngi sax mais daal jàppal ni. Mhm. mu nekk nii li ñuy li ñuy ñàkk da dëgg dëgg mooy ñàkk yëpp bi nga xamante ni ministre bi gis na ko jàngalekat parce que li ko intéressé rek mooy génn ci télé yi rajo yi. waaw ah, justement justement monsieur Kane ci loolu tax laa bëgg nga ñëw le fait que ngeen nekk ci six mhm. plans d'action boobu ba tey dafa mel nii la ngeen yaakaar ni daal seen tutelle def na ko wala sax daf leen a faalewul. waaw moom moom day xanaa xanaa waxati ko moom li ko li su mu nekk nii li ko tere na raw mooy maire yi Diourbel bu euh, ko wax nag ci kaw waaye loolu lay liggéey parce que boo tuddee Tamba mu ñëw boo ko tuddee Sabar mu ñëw boo ko tuddee sax soirée dansante nga nekk biir Diourbel dana ñëw waaye bu fekkee ni enseigne enseignant la nag boo ko tuddee yëpp jàngalekat day mel ni da lay da lay soxantal parce que li ka gën a intéressé mooy xëy na politique bi muy politique foofu wutu wutum base bu métti bi mu nekkee Diourbel loolu moom moo tax talul dara lu dul soo déggee rek fu mu nekk mu ngi ànd ak benn équipe bi nga xamante ni ñoo ngi koy photo euh, di ko defal ay vidéo di ko wane muy muy visité di jàppale ñii ci ay bar ñii ci ay euh, xaalis ngir Kumba yeeg loolu moom moo ko intéressé moo tax yëngatuwul suñuy mbir parce que xam nga dafa am ñaari mbir yow bu ñu la fatee nga nekk ministre ñu jox la lu mel ni benn département dafa am li nga xamante ne moom lañ koy xaar mais nañu xoolaat bu baax ba mu fi ñëwee ba léegi nan la fi nekkee lu dul nekkee wu lu dul euh, li nga xamante ni par exemple day am impact médiatique maanaam day am ñi nga xamante ni mbooloom ba ni koy gis muy wane boppam. moom wanewul ministère bi mais boppam la ñu ëpp li ñuy wane te ñun loolu soxaluñu intéressé wul ñun li ñu intéressé mooy suñu ministère ndax dama yàgg di wax bi kuñ fi mës a famitin diñ fi mës a jógee te kon ñun du ñu xeex nit mais dañuy xeex jëfinu nit te jëf yi nga xamante ni moom la fiy def boobu ba léegi mooy moo ñuy wan mooy wane ni amul benn considération si jàngalekat yi loolu nag nekk li nga xamante ni daf ñu décevoir loolu ndax moom ci wàllu boppam jàngalekat la woon Mm-hmm. moom ci wàllu boppam ci système bi la nekkoon. mais xam nga li ñuy wax rek buñ la falee moom euh, nga am ay xarit yu bees am ay àndandoo yu bees comportement bu bees da ngay fàttali démb bokkoon nga si ñi naan lii dañ ko war a soppi. Mm-hmm. donc loolu mooy li nga xamante ni moo nekk ci secteur maanaam tey fu mu toll nii euh, le ministre Dame Diop talul lenn lenn lu dul wutum base politique ak mairie mairie Diourbel mais li ci ministère bi moom xamu ko. mais pourtant monsieur Kane yaa ngi naan euh, talul lenn monsieur Dame Diop je rappelle mu nekk seen tutelle lu dul euh, base fële ci Diourbel pourtant euh, tey jii ak fii ak juróomi fan en tout cas ma nga ca jam ñaajo ci rek salon international artisanat ba nga xam ni sax tey jii mu nga doon wax ci suba nii nguur gi ak banque mondiale noppi nañ daal ngir jàppale secteur bi ci juróomi milliards ndax yaakaaroon ne ak koppar yooyu bu ñëwee nag seen i problème nañ ko saafara. waaw madame mooy mooy li ma doon wax léegi rek xam nga déggoo man la fépp nga xamante ne télé rajo dafay ñëw moom mu mën a nekk ci kanam après bu paree ñu ñu samp ko micro yi mu wax foofu dafay sawar a dem parce que foofu dañ ñaan moo ngi liggéey xam nga Sénégal chiffre moo ko yàq maanaam képp kuñ fi mës a boo fi jógee bu la ñi nga àndal buñ fi buñ la defee sa bilan da nga naan yoo gongo ci lépp fi def kenn mës ko fay def mais cinq milliards yooyu ñuy dugal am na lu ëpp cinq milliards yi nga xamante ne dugal nañ ci secteur bi parce que bu ñu Macky euh, le président Macky Sall dafa ni enseignement technique ak formation professionnelle moom la bëgg def mu nekk levier di développement parce que li ñuy wuteeg ñeneen ñi mooy lan ñun bu ñuy former nit dañuy former nit pour la vie dañ koy former pour mu am métier dañ koy former ngir ëllëg mu jëriñ mu jëriñ réewam donc ba mu ñëwee léegi dañoo gis ni budget bi multiplier nañ ko presque par deux mais ba ñu multiplier budget suñu ministère par deux paradoxalement dafa am leneen lu ñu gis maanaam ci école yi budget yi moom dañuy dagg rek di gën a wàññi di gën a wàññi di gën a dagg donc ku daan am euh, trente deux millions da ngay dem ba léegi par exemple il peine difficilement à avoir quinze millions jël leen lu mel ni par exemple lu mel ni ay lycée technique comme ku mel ni lycée technique euh, bu bu Saint-Louis nga xam ne trente deux millions la nekkoon vers les années deux mille douze aujourd'hui il peine difficilement avoir quinze millions xam nga loolu moo leen wane ni chiffre yi ñuy wax ak fi ñuy dugal xaalis yi moom moo moom moo bokkul ndax bu budget yokkule te yow équipement yi yokkuloo te yow euh, say formateur maanaam enseignants yi defoo li ci war mais surtout yow li ngay organiser mooy ay séminaire li ngay organiser mooy ay voyage li ngay organiser mooy étude yu dul jeex xaaj ñaata étude lañ ciy def ñi nga xamante ne bu ñu paree ñu def ci placard bi ñaata yoon lañ fiy def ay voyage yi nga xamante ni dañ naan ñoo ngi def audit fii ñoo ngi def lële ñoo ngi def nangam ak sàngam suñu paree ñu jël lépp teg ci placard bi man dama ni dama ni xaalis bi li ñuy def ci enseignement technique mu jóge ci nguur gi buñ ko jëloon def ko ci enseignement technique ak formation professionnelle ak artisanat yaakaar naa ni duñ fi nekk sax di ay son ak yooyu parce que boobaa dina dox ba nga xamante ni soxlawul ñuy wane lii la ñuy def ak lël la ñuy def parce que dëkk bi foo rek di gis ay artisans yi nga xamante ni am nañu ay commande di gis euh, nu tudd ay ouvriers yi nga xamante ni qualifié nañu ba nga xamante ni euh, Sénégal dina dox mais jamono ji dañuy wax chiffres yooyu ñuy wax di nga dégg mais li ci ëpp ci lay dem li ci ëpp ci voyage lay dem li ci ëpp mission lay dem ba nga xamante ne su paree la ci la lañ cay réaliser lu néew la loolu loolu gis parce que li leen intéressé mooy euh, prestige boobu ñuy wut moo leen intéressé et non pas nan la ñuy jëmale secteur bi ci kanam. Mhm. Euh, bokk na ci seen i revendication ba tey euh, monsieur Kane euh, di rek intégrer lu bëri ci seen i agents rawatina ñi nga xam ne ils ont capitalisé plus de dix ans de pratique de classe ci fonction publique ak lii di formation diplômante bi tey jii naka la xel mën a nangu nii rek yéen a ngeen jàpp ni seen jëwriñ di daam Diop dafay leen di bañal lu nu mel. waaw xam nga xam nga ci nga tey xëy na dañoo dañoo néew bu ñu bu ñu jëlee ci jàngalekat yi ñun dañoo néew ñun boo xoolee ñu nekk ci enseignement technique yëpp ak formation professionnelle bu ñu jëlee seen nombre motuñu sax quatre mille huit cent boo ko comparé ak éducation nga xam ne presque ñoom quatre vingt seize mille la da ngay xam ni ñun nombre bu tuuti la ci jàngalekat yi waaye nombre bi ni mu tuutee noonu boo doon jël par pourcentage tey ñi nga xamante ni ñoo ci nekk ay décisionnaire décisionnaire boo ko déggee mooy nga xamante ni balaa ñuy dugg ci fonction publique am nañu trente cinq ans si suñu ministère la ëppee boo xoolee itam si suñu ministère boo doon jël par exemple par pourcentage nga xool par exemple ñi nga xamante ne ba léegi nekk gu ñu ay fonctionnaire suñu ministère la ëppee loolu muy ay nekk ay lenteur yi nga xamante ne mooy li may wax fu ñu war a def fulla ak fayda ak farata defuñu ko fa parce que tey nga jël par exemple une formation nga recruter ci année bi par exemple nga recruter une centaine de personnes nga ni man su may def moom mooy problème parce que tout simplement il y a des problèmes de matière d'œuvre parce que tout simplement am na problème nangam ak sàngam loolu dama naan gàllankooru euh, ja euh, jàng euh, avancement jàngalekat yi la parce que bu doom li nga xamante ne par exemple dañ si def fulla ak fayda instant bi nii waratuñu woon wax sax ci problème mu formation diplômante hmm. parce que pour nga mun a nekk fonctionnaire day aajoo nga dem ci école de formation hmm. boo demee ci école de formation ñu tàggat la fa boo bu yàlla defee nga jàll am diplôme bi nga xamante ni moom lañ lay reconnaître fonction publique mais tey dañoo gis ni ñu bëri ba léegi fu mu nii ñoo ngi xaar seen formation diplômante am na ñi nga xamante ni sax ñoom xaaruñ formation diplômante parce que dañ leen wutalul formation diplômante parce que amul dispositif bi nga xamante ni def nañ ko lu ci mel ni infirmier ak sage-femme d'État yi lu ci mel ni yenn professeur de gestion yi lu ci mel ni yenn professeur yi nga xamante ni ñoom ñoo yori agriculture te ñu recruter leen avec seen niveau donc yooyu mu nekk ay gàllankoor yi nga xamante ni moom moo fi nekk te xëy na li nit ñi bëriwul moo tax coow li ñu nga faral di dégg mais nit ñi dañu nekk di souffrir en silence te ñoo ngi ci système bi ñenn ñi depuis dix ans ñenn ñi depuis quinze ans ñenn ñi depuis plus que ça te bu dul loolu ñooñu même bu ñu amagul diplôme même bu ñu demul formation diplomate mais waroon nañ leen permettre parce que fonction publique tegoon na li ñuy wax ce qu'on appelle des glissements catégoriels boo demoon éducation nationale nga wax leen nga wax syndicaliste yi wala nga wax ñu fa nekk glissement catégoriel ñu ci gën a bëri duñ ko parce que ñoom yàlla def na ni ñu ci ëpp si ñoom wala pour ne pas dire tout le monde am na possibilité de formation diplômante mais ñun suñu suñu suñu secteur am na ñi nga xamante ni mu ngi def formation diplômante gutaguñ ko mais am na benn système bi nga xamante ni fonction publique na mooy ce qu'on appelle les les glissements catégoriels mais imaginez les accords de 2009 qui ont été signés 2011 la ñu gëj a def commission yooyu boobu ba léegi donc képp ki nga xamante ne dafa nekkoon contractuel fa nga yemoon fa nga yem ba tey mu nekk li situation bu day waar li may wax rek xam nga boo ngeen bëriwut boo ngeen bëriwut wax ci bu a jóg. Hmm. donc 2011 ba léegi commission amul muy 9 ans yi nga xamante ni nit ñi nga xamante ne ay PC la ñu ñu recruté loon ay dans les années 2000 ñu nekk fa la ñu nekk ba léegi donc problème mu carrière problème carrière boobu damay wax ne volonté la bu amoon volonté de de la part des deux ministères de tutelle mooy suñu ministère bi nga xamante ne moo ñu nang ak ministère fonction publique je pense que war nañ ci mun a trouver solution tey jii mais nag comme li may li may li may ah, ah. Ah, ah. tey jii monsieur Kane ndax yaakaar nga ni coordination bi mi ngi dox ci diggante ñaari ministères yooyu justement ak ci seen problème bi la. waaw coordination bi war a dox des na ma ni ko coordination bi war a dox des na. Hmm. waaye nag bu ñu fàtte wax ni kuy wax ak yàlla rek te tax. Euh, fonction publique nag ñu ngi góorgóorlu. fan yi mm. seulement seulement euh, benn remarque rek nga xamante ni nag euh, il faut que ñu def ko mooy tey ñi fa nekk war a traité jàngalekat yi dañoo néew lool te amuñu moyen amuñu motivation dañoo new loolu amuñu moyen amuñu motivation parce que boo xoolee par exemple lu mel ni quatre vingt seize mil personnes et nga jël par exemple benn division bi nga xamante ni boo ci duggee ñu fa nekk motuñu trente amuñu lu dul ay benn scanner ñaari scanner n'est-ce pas war a traiter de la carrière loolu pour ñu mun ko deful day xaw a parce que damay faral di wax ni euh, lu ñu góorgóorlu rek bu ñu tànkee euh, bu ñu tànkee ci la fa nekk ci dossier ñaar juróom ñoo ngi ñëwaat taxaw di xaar te kon kooku day nekk une situation sans fin solution bi ñu mënoon andi foofu mooy ñu def soit ñoom ñu xool ni ñuy defee par exemple des fonctions publiques locales euh, mu am représentation comme li nga caravane yi nga xamante ne moom la ñuy def nga xam ni au moins dina wàññi charge ñu jël division boobu ñu jéem ko def xaw ma nag ñoom nuñ koy xalaatee mais loolu seen liggéey la mm. wala boog ñu yokk encore le nombre de personnel bi nga xam ne ñoo koy traité parce que tey jii boo jëlee ce qu'on appelle par exemple euh, pour ne pas parler des termes techniques lu mel ni ay bureau bee 12 bu ñi fa nekk ñëpp maanaam ñi war a gérer professeur Sénégal bi yëpp boo leen jëlee ñu fukk mm. n'est-ce pas mm. donc ñoom ñoo ngi góorgóorlu kuy waxal yàlla rek tey tax ñoo ngi góorgóorlu waaye nag xam nga góorgóorlu bi nga xamante ni saa yow tànkee benn am ñett yi nga xamante ni moom la ñuy rootaat bu yàggee sa góorgóorlu kenn ko donc foofu moom. Euh, problème moo ngi ko ba léegi parce que ba léegi dañuy accumuler retard yi. d' accord ba tey li mooy dernière question bi sax euh, sànq yaa ngi koy wax euh, muy. lu jëm ci menace bi ngeen di menacer ne da ngeen bëgg a dem en vitesse supérieure bu fekkee ne en tout cas seen jëwriñ wuyu suwul leen ci la ngeen koy laaj tey ji lan ngay lan lañ mën a déggee ci vitesse supérieure boobu. waaw dañ may baal ma bañ a wax fi ñu jëm xam nga fi ñu jëm moom ne mooy li may wax rek ñun ñoo ngi ñoo ngi tàmbale. te ñi ñi nga xamante ni ñoo ngi suivre gis nañu ni ñoo ngi dem crescendo bu ñu xoolee par exemple suñu sixième plan d'action bi y a eu des yi nga xamante ni am na un peu partout à travers le Sénégal heure bi ma lay waxee nii fu may fu may waxee yow nii Matam ñoo ngi manifester euh, fu may waxee nii euh, Fatick ñoo ngi manifester démb Kolda manifesté woon na Louga manifesté woon na Thiès manifesté woon na Dakar manifesté woon na bërki démb Saint-Louis manifesté woon na donc ñun ñoo ngi teg suñu plan d'action li ma mën a wax rek mooy dañuy tënk toujours ci cadre légalité du ñu toog du ñu def la nga xamante ni vraiment c'est des euh, ay actes yi nga xamante ni c'est pas des actes civiques mais lépp li nga xamante ni yoon may nañu ko dañ ko def te dinaa la wax ni euh, li nekk ci kanam raw li bët mhm. damay faral di wax ne ñun li ñuy def dans le monde syndical c'est quelque chose bi nga xamante c'est très pensé enseignement technique et formation professionnelle daañu def ay actions yi nga xamante ni dans les jours à venir dans lépp dans la légalité mais nga ngeen baal ñu ñu bañ a wax lan la ñuy def parce que la primeur quand même daañu ko jox suñu militant mais aussi vous serez au courant de ce que nous sommes en train de faire. mais daal li ñu mën a tënk. Mhm. li ñu mën a tënk mën ko mhm. jàpp mooy euh, secteur bi moom bu ñu doon wax ni euh, dafa feebar xamal ni lott na lool ñu ci nekk. Mhm. découragé nañu lool te jamono ji bu fekkee ni volonté politique ba nga xamante ni moom la chef de l'état di di wax accompagner wuñu mesure euh, di amul ay mesures d'accompagnement pour les pour les enseignants day gën a suuxe rek parce que kay formé bu fekkee ni moom nekkul dans les conditions idoines nekkul ci conditions yi nga xamante ni moo baax kooku pour mu former correctement day poser problème équipement amul te euh, lu doy waar lu doy waar mooy tey jii ni par exemple da ngay dem ci centre formation yi nga xamante ni boo fa demee ay abri provisoire fa nekk ay crène nga fa nekk euh, ñi ñenn ñi nga xamante ne par exemple même ay atelier demee par exemple lu mel ni nga xamante ne benn soirée dafa am nga dafa am yi nga xamante ni il faut que nit ñi dem gisal ko seen bopp pour dire que ci biir Ndakaaru sax abri provisoire am na fi mm-hmm. donc bu ñu wax yeneen lii nii parce que li ñuy faral di ndamoo mooy li fi tubaab yi def mooy projet projet yi li ñuy def comme par exemple dans la zone nord alhamdulilahi rabil alamin dans la zone nord tabax nañ mais dans d' autres zones fépp fi nga xamante ne Sénégal moom moo fa waroon defar defaru mm-hmm. demal fu mel ni demal fu mel ni euh, demal fu mel ni Fatick Fatick lu ëpp deux cent millions def nañ ko ci benn tabax ba nga xamante ne presque lépp yemm na lan moo ci des lu dul ay peinture ay réfection yu ndaw moins de vingt millions d' après chiffre xam moom lañ ko jox tey ñoo ngi dégg ministre bi jógoon na fi ne dafa bëgg tabax ci département Sénégal yëpp quarante cinq centres ñuy laaj lan mooy pertinence su tabax loolu alors que yow fépp fi nga bëgg a tabax fépp fi nga bëgg a tabax déjà am na ay centres yu fa nekk yu fonctionnel ñuy laaj ñaari mbir ñuy laaj ñu équipé leen mais ñuy ñuy laaj aussi ñu defar leen pourquoi ngay dem di tabaxi alors que fi nga bëgg tabax yi am na déjà la fa nekk la ñu commencé wala am na la fa nekk li nga xamante ne dañ ko war a jeexal mhm. nga di damay dem jël ay milliards def ko fële mhm. parce que foofu nag moom du ñu làqante foofu leen rek moom moo tax nit ñi di sawar di tabax yi tabax yu bees parce que foofu la ñu mun a amee dara. d'accord xam nga Sénégal loolu moo ci doy waar. d'accord d'accord ci doy waar. Ah, ah. donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax te di la ñaanal nag euh, seen jëwriñ ji dégg doléance yi la ba mu mun koo saafara. ñuy fàttali ne yaay secrétaire général bu syndicat de l'enseignement euh, professionnel et technique ñu ngi lay jaajëfal monsieur Kane. jërëjëf madame.